السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أه، سيدي أحمد. أه، من دي خمون ولا لط نانو تي وخ بن بات بونو منا وخ بو منا ген سون ييني اك سونو تياند سونو غيرم اك سونو سوني سونو بوب اك سونو خول بو سد اك سونو خيل مو دال mun nu génn ci suñu làmmiñ bu mën a feeñal loolu am nañ mbégte mu rëy am nañ cant gu rëy kaddu yi nga xam ne Sidi Ahmed àdduna ko fi kaddu yi yóbbaale na lépp yóbbaale na baat ak tontu la yób kaddu yi yóbbaale na lépp yóbbaale na tontu li ma ko war a tontu fii addu yóbbaale na ko ndax man lot naa ci man ko waxee ni mu nekkee fi man kon xanaa suñu borom koy seeral rek ñu ci xol bi muy yéene ji mu gi muy gi loolu lépp suñu borom laa koy seeral ci suma diggante ak sëriñ ba sëriñ Aba sëriñ Ababacar mu jóge ci kàddu yi jóge ci moom jéego ci moom jaar ci Sidi Ahmed mii ak bokk yu baax yi mu àndal gis naa ko yëg naa ko bu baax a baax baax lu sooree sooree ci man la lottu naa ci wax li ma ci yëg ak fa ma àgg lottu naa ci sama làmmiñ lottu na ci wax ko waaye ñu xam ne yàlla rek laa koy seereel noo ngi sant bu baax a baax a baax a baax ci taxawaay bii nga xam ne Sidi Ababacar feeñal na ko feeñal na ko ci jëmm ji Sidi Ahmed ak bokk yu baax yi mu àndal loolu réer na ci man lool kon yàlla rek laay seeral sama cant ak sama ngërëm ci jëmm joojee ngeen jóge ak jëmm ji ngeen àndal ak seen jëmmi bopp gannaaw ba ma ko seerale suñu boroom di ko seeral kilifa yu baaxee mais si loolu moo leen ko seeree rek mu doy ndax du loo mën a wax sama làmmiñ waaye cant gu rëy ak mbégte mu rëy ak soññ bu rëy ak yaakaar ju rëy ju dolli ko loolu rek loolu lépp ak buñ ci sama làmmiñ àggul itam loola yàlla rek laa koy seeral moom mi nga xam ne amul kumpa te it defe naa moom rek ci am solo nañ ñu seeral nañ ñu nuyoo Ababacar nañ ko. nuyu bu baax santal ñu ko bu baax a baax a ne ko moom rafet njortu waxuma jëf jure ji sax ji jëf ci liggéey ci yoon wi seen jéego yi ak seen jataay bi ak kaddu yi si Ahmed yi waxuma sax loolu waaye rafet njortu gi rafet njortu ci man sama jëmm ju xeebu ji eh, maa ngi ñaan sunu borom mu fayal ma ko fayal ma ko lu kaw njortam ci dundu adduna gi ak dundu àllaxira gënu jëm loolu rek laa ci mën a feeñal ci nu ma ko mën a wane li nga xam ne moom laa yëg sama digganteeg moom loolu rek laa ko laa ko laa a feeñal kon ñaan bu baax a borom. gannaaw bu ñu ko fayee yeneen jure yi ju rafet rafet ji nga xam ne feeñale na ko ci seen jëmm yi eh, bu loolu wéyee il faut que ma eh, sant ko sama sancantu bopp sama bopp eh, mun ma ko fay amul ma ko fay maa ngi ñaan ci sunu borom mu fayal ma ko ci lu njortam ci yiwu adduna ak ci yiwu àllaaxira la ciy jiitu itam yàlla dolli ak wéram dolli fan bi ba mu gudd lool doon ñaan bu baax a baax a baax lott nañu ci wax li nga xam ne moo nekk fi noonu waaye nag yàlla mi amul kumpa noo ngi koy seeral ne am cant gu ngërëm gu rëy yëggu yëggu yëggu yëggu yëggu soññ bu rëy ci suñu bopp suñu jëm ji xeeru ji seen jéego yi ak seen jotaay bi ak kaddu yi si Ahmed yi soññ bu rëy la ci man kon alhamdulilah rabbil alamin noo ngi sant yàlla di leen sant bu baax di leen gërëm di gën a seer suñu borom ne noo ngi gën a feddi suñu laxasaay li nu bokk muy lislaam noo ngi gën a feddi seen suñu laxasaay gën ko fas yéene ànd ak yéen sax dàkk ci liggéey lislaam waaw ñoom koy seeral bu baax a baax baax jërëjëf di yëggalu rek li ma bëgg wax mënu ko wax <laughs> lot naa ci wax ko waaw yàlla xam na ko kon maa ngi koy seeral di leen ko seeral maa ngi lay jottali tamit nuyoo mbokk soppe alxaaji man suur mbay waaw nee na nee jot na teraanga yëpp ba démb rek Abla xaaji Ablaye Mbaye Péex woo na ko ne ko sëriñ baa ngi nii sang baa ngi nii yóbbante na ma ci yow ci ordonnance yeeg dépense yeeg yëpp mu ne kontaan na yàlla na la yàlla fay. waaw loolu defuñu ko dara. loolu kër kër Cheikh Cheikh Sidi Almalik. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. noo xam nam fa nam fa demee. dëgg la dëgg jërëjëf. loolu tax nu amel ko teraanga. jërëjëf ngir ngir ngir kër ga. jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf. كرادي تدار يا الله أنت سلام ياسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي منك يا الله أنت سلام ياسي سلمت كل يوم ويا بنفسي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 جماعتي يا الله أنت العزيز